jëme ko ci mboolem mbokki dëkkandoo yi si demba xuréje ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fa sëriñ bi yàlla nga ab téeméeri at ci barke yonent bi Souleymane Khoule nee na mu ngi lay ñaanal baayam nee mu ngi ay ñaanal yaayam nee mu ngi lay ñaanal waa Tamba yëpp nee na ñu ngi ay ñaanal si Malick Tamba bu xewlee gis fi subsidié Malick seen xel dina dellu ci seen maam ya cër ba ñu joxoon sa maam sànniwunu ko si Malick ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla nga am téeméeri at Souleymane Khoule nag day nit bu baax nee na ku kuy te ku nekk ci dëkk bi teew nga nee na mu ngi lay sant particulièrement nag mu ngi sant ñi nga xamante ni ñëw nañ teew fii si Malick kaddu yooyu mënu ma ko cee bañ a wax ndax man fu ma leen fekk dinaa leen ko waxal ndax amoon naa maam du ñuy wax lat yaxara ak borom boy lokki samam siraaj Malick tànn turam tudd ko Muhammadu ñu koy woowee Baye ndox yàlla nga am téeméeri at ci barke yonent jërëjëf